candidat yu bari yi bi may jox damay xaw a am kersa quelque fois. xaw a am parce que dafay mel ne politiciens yi. les les nouveaux politiciens je les appelle les dañ jàppee réew mi comme benn console de jeu. comme console de jeu Nintendo ngay ngay jàpp di manipuler di réew di loolu réew c'est plus compliqué que te njiitu réew dafa laaj maturation. da nekk ndaw am jaar-jaar. boo ko dee xool sax ñu ci bari politiciens yu mag yi. Mhm. dañuy nekk ci lycée yi nekk ci foyer yi. Mhm. di diriger ay mouvement de grève nekk ci foyer yi yore ay mouvement associatif dem ba caag nekk ci parti politique di monter nekk secrétaire à nangam secrétaire à nangam di yéeg di yéeg. Mhm. xam nga moo dal Abdou Diouf un peu moins mais moo dal Abdoulaye Wade. politiciens yu mag yëpp dafa am jaar-jaar mhm. mais yeewu rek benn bis rek ne bon wala am naa une maîtrise je suis un intellectuel je suis un cadre je suis je un parti politique je suis d'accord avec Macky Sall loolu xam nga lu koy indi hmm. euh, ngeen bu nag mais noonu laa ko sentir hmm. xam nga boo demee ba xeeb réew njiitu réew ba jàpp ne comme kii moo nekk président man mën naa maa nekk président ku nekk war naa mën a nekk kan loolu xeebel la te njiitu réew mi ak ay la yoon ak lu mën a xew man ànduma ak moom mais quand même il y pour cent de Sénégalais ñoo ko yaakaar wóolu ko. fal ko mu man mu ñàkk man mu mat mu ñàkk am lu ci lu manqué. njiitu réew kenn du ko xeeb. parce que xeeb ko mooy dem ba nga xeeb institution yi. nga dem ba xeeb réew mi. ba jàpp ne waa réew mii kat lu ma neex mën naa leen ko def. heure bu ma nee nii ñu daw génn topp ma. Mhm. ba du ñu amati fu ñu jëm loolu mooy indi pëcc xobu métti bi ku nekk ni candidat la. Mhm. mais ñun ñi nekk ci wetu président nekkoon ci wetu président Wade nekk wetu président Idrissa. ku nekk mën nga nekk candidat. mais jaar-jaar bi moo ñu koy interdire. maa ngi yore parti politique. maa ngi ko yore woon bu tudd PLC dama ko ñëw taf ko ci wetu Idrissa Seck parce que ñëpp mënuñoo nekk njiitu réew. moom moo ne parce que li ñu gisoon mooy président Wade buy dem seet kenn ci parti bi mu jiital ko ñu topp ci moom te kookee ba tey. Idriss Seck la waroon a nekk xëy na nekk ko yaayu des problèmes mais ba léegi bët boobu man laa koy xoolee bëtu taaw boo xamante ne bu bàyyi wéetee moom mooy war a mooy war a toppatoo kër ginnaaw kër gi dafa am nit day xam fu mu war a yem nit réew du ay caaxaan du lu ñuy foyee comme ça tëb rek ne man damay nekk candidat parce que génn naa ENAM wala génn naa telle école je suis candidat non c'est pas comme ça un état mm-hmm. c'est plus compliqué que ça et puis géopolitique mondiale fi jaar-jaar lu mel noonu jox am réew mooy indi comme li xew Ukraine. na ma yàlla baal seet koo xamante ne xañ na matagul dara. waaw ginaar gu matagul nga daal ne bon waaw nga daal amul expérience ci dara. mu dugal réew mi ci xeex bu métti àdduna bi yëpp mu waale ko ba taalaal àdduna bi yëpp. donc réew mi dañu war a dal. d'accord te seet li jaadu ñu def ko. Mm-hmm. candidat yu bari yi amul benn njariñ amul benn sens. moi je crois que euh, ku nekk euh, xam nga.